ah maam Diaga Samb maam Diaga maa ngi lay siyaar kenn tooñu la waa Idriss Seck mii lu mu jékki-jékki jéem a dem ci Macky ah man réew mi nekk de Idriss Seck buñ ko joxoon sol ndox de Idriss de nekk de mënta matu sax chef de village de chef de village waxuma la chef de quartier ak ay ministre ak yoy de chef de village idi sek matu ko idi man ba ma duggee ci man gàcce ga wourna seigne fallou Fallu la wotel woteel keroog jël màcce dugal ci mbari ni jël idi def ci def ci sase bi nekete idi ay waxam ak prip mangoyam day yéeg ko wacc tay bima deglo dégloo ñu dama fal nañ ko dama rus ah waaye idi mom joom na di idi Seck idi sek nim demee ni dafa dafa nax sénégalais de li yo tax pa bi doon wax naan nitu Thiès mo danser amna pa bu ko doon wax naan nitu Thiès lum mu la wax deug xawma lan ñom ñet fukk yeb dañuy war nit nitu Thiès moo dangereux lu mu wax dëgg waa Idriss Seck ñoom bokk na ci ñooñu Idriss Seck fii la daan ñëw di taxaw dañu làkk naan ñu ay lor dem njariñ dikk di làkk ay arabam ak lu ne nekkate booba mi ngi wakaalanteeg Macky mi ngi doon wakaalanteeg moom ndax mën tëxee xëy rek jekki-jekki ni ko ñëw ma fala mu nangu ma leer na ma ñu daan waxtaan WhatsApp ak ay groupe WhatsApp ak lépp lañ amoon Idriss Seck mii nekkate si Idriss Seck moo ñeme yàlla Idriss Seck banaa ki kii du nitu waaw Idriss Seck loolu dafa Idriss Seck daa jékki-jékki ñëw Touba naan xat faa kabla fa dur wala wala fu jaay rek murid di naaw ni comme Idriss Seck laal na Sëñ Tuubaa lu mu ci laal bëgg ne xam murid boo ko bu naxee Sëñ Tuubaa day nangu waaye li ma gën a naqari mooy Touba gi mu woon ba noppi ndekete Idi ay waxam ajut am ngooñ Idriss Seck ñaawayam bii taxaw ci public bi di duraa duraa wana fu jaay ndeke dañu doon jéem a nax war naa dem ci ay waa ji Macky Sall war naa far Idi waa Idi bu tëddee ba guddi mu seeraan vidéo yi mu daan wax xat faa kabla lu muy wax incha allah fi mu kon ah rus naa waay xanaa kon léegi jaag sàmm idi xanaa kon murit gi na wax ne ci la bokk noonu dañu doon nax naan xa faax kam laa fa durwaa noonu rek waaye bokku ci ñun kon bokku ci ñun kon idi kon waa Corée la jébal wala waa Égypte wala waa fan ah man Idriss Seck jaaxal na ma Idriss sekk day wër wax ji weeroo wax ju weeroo nii gëj naa koo dégg ca Demba War Sall ba mu war a la jor wax joo xam ne da ngaa wor wor ju rafet te eh, maanaam Idriss Seck public bi la wor adduna surtout ñun waa Touba naan fa duru wala fa duru wala wala fu jaay ñuy wote ndekete yoo ki ay waxam ak prix mango yam day yëg ko wàcc.